am mbégte tey jii ñëw fii Touba euh, ànd ak euh, si ndigalu sunu ay kilifa Serigne Mbaye Thiam ak euh, le ministre Issakha Diop pour ñu partager ci ndigalu xalif bi nga xam ne ñu ngi koy ñaan mu yàgg fi lool te wér ki ko fi teewaloon di sëñ Abibou Mbacké bu Serigne Fallou ñu am ci mbégte lool mu ñëw bokk ci ndaje mi ci nga xam ne Touba ca kanam mairie bi Hizbut Tarqiyyah Touba xeeb ñoo ko bokk depuis ce matin li mu wane nag mooy Sénégal dafa am beneen taxawaay bu mu bëgg a teg ci wàllu xeex inondation loolu mooy li jëkk li si nekk mooy am na benn jumtukaay bu nga xamee ne daf ñuy permettre ñu gën a xam nan la suñu dëkkuwaay bi tëddee ndax tey ñi nga xamee ne ñi ngi fi dund ci téeméeri at yu mujj yi koo ci wax denaan la mosumaa gis ndox mi ma gis ren ji ça veut dire que jamono dafa toll fi nga xam ne taw yi nga xam ne mi ngi dellu si xëy na ñun ñu fiy dund ñëpp amuñu chance fekkee woon ko ay at ci gannaaw mais ñun dañu ci suñu xarala yi dañu jël jamono ji dindi lépp luy nekk ci kaw suuf si créer fi benn pluie artificielle yu ñu defee taw yooyu ba pare daf ñoo woon fépp fi nga xam ne dex la woon fépp fi nga xam ne yoonu ndox la woon ba nga xam ne jii muy fii ñu dëkk ñu nekk ko tey ji si biir Touba xam nañu fépp fi nga xam ne déeg la woon fépp fi nga xam ne dex la woon fépp fi nga xam ne yoonu ndox la woon xam nañ ko tey dëgg la ñi ngi ko dëkkee loolu moo indi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dindi Touba te loolu état bi mu ngi ciy góorgóorlu ci lu mu mën yaatu na lool xëy na état moom euh, day dem au coup par mais munuñu ko liggéeyandoo globalement mais at bu jot daan ci jéem ay jéego pour wàññi jafe-jafe bi mais li ëpp solo mooy. comme dëkk bi yàlla dafa def tey jii mu nekk dëkk bi gën a màgg ci biir Sénégal dañu dañu am yéene liggéey ko ba nga xamee ne bu jafe-jafe amee ëllëg inondation dutul am ci dëkk bi fi muy màggee donc loolu tey jii carte yooyu pare nañ ko daañ ko partagé ak mairie bi partagé ko ak organisation yi ba nga xamee ne bu lotissement di amati fii nga xamee ne wàllu ndox la moom kenn du fa dëkkee fii nga xam ne déeg la woon kenn du fa dëkke te loolu déjà nekk na premier résultat bi nga xam ne am nañ ko ci cartographie bi mais du ñu yem foofu dañuy jël cartographie bi yëpp jébbalaat ko beneen bureau d'étude bi nga xam ne dina commencer liggéeyam fii ak le 10 janvier su boobaa moom tamit day ñëw rek indi ci yeneen solution yi nga xam ne amaana mooy kanaal yi ngeen gis ñu koy def ak bassin yi nga gis ñu koy def ak station de pompage yi nga gis ñu koy def dañu bëgg a sant buru euh, bureau boobu di ñëw ne ko bu nu sañoon daal daañu am beneen liggéey beneen taxawaay beneen seetlu ak beneen doxalin ci wàllu inondation parce que Touba gis nañu ne dëkk bu am jafe-jafe la ci wàllu inondation euh, ndax dafa bëri li ko seex yenn yi dafa di nekk ay remonter de nappe maanaam ndox mi la ci suuf te loolu il faut ñu jël ko en considération dafa di place bi nga xam ne aussi dafa bëri ay xur bëriwul sax ay yoonu ndox mais ay xur la bëri ñu laaj ko ban xam-xam la ñuy mën a àndal ci xur yooyu est-ce que daf ñuy xalaatal ñu jëlee fa nit ñi wala daf ñuy xalaatal nan la ñuy def ba xur yooyu ndox bi fa mën a taaji mën dem loolu mooy sababu euh, rencontre bi ñu amoon tey jii du nekk suñu benn rencontre day nekk suñu ndorteelu rencontre la nekk suñu ndorteelu lëkkaloo ak mairie Touba ak les organisations yi fi nekk ba nga xam ne suñu yéene mooy ak sunu euh, ak ndigal li ñu am ci suñu ay kilifa maanaam monter fii ci Touba benn bureau bi nga xam ne dañ koy tuddee unité d'observatoire nga xam ne dafay dañ xam-xam bi nga xam ne tey ji am nañ ko ci données ci biir Touba da nga xam ne boo toogee fii sax mën nga ko liggéey parce que géoportail bi boo toogee fii sax mën nga si liggéey mais am nañ yéene ci zone pilote bu nekk ñu am fa lu ñuy wax une unité d'observatoire et de résilience ba nga xamee ne cartographie bi les données les données du de, les données du SUG le géoportail fii ci Touba boo jugee fii da ngay dem ba foofu ne ah man kat seetal leen ma sama kër gi wala lotissement bi est jaar na yoon wala jaaru yoon loolu daal mooy solo su liggéey bi ñu ànd ko ak ay bureau yu mag muy IGNFI yi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci wàllu cartographie ak euh, waa SCE ñoo itam ñu ñuy accompagner ci ci liggéey boobu loolu mooy taxoon tey jii ñu ñëw fii ci si ndigalu kilifa yi di gërëm sëñ Abibou Mbacké ci taxawaay bi ci teeru bi ak euh, délégation bi nga xam ne moom la àndaloon mais également di beral nuyoo di beral ngërëm Touba ca kanam mairie bi Touba Xepp ci vraiment solo si bi nga xam ne jox nañ ko liggéey bi ak borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi jóge ba dakaar ñëw bokk ñu liggéey bi te invité wuñ leen sax muy professeur Fall di professeur Serigne Faye ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñëpp gis nañu njariñu liggéey bi moo tax ñu ànd ak ñun nekk ay taalibe xam ne ñoom tamit mën nañ indi seen contribution déplacé wu de leur propre moyen ñëw pour fekke fekkee fekke fekke bis bi lu sedd suñu xol la ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam waaw damay wax sànq ne solution yi ñii indiwuñu ay solution mais daañu jumtukaay bi ñu liggéey dana permettre bureau bi yi nga xam ne dana démarrer liggéeyam le 10 janvier li ko ñuy jox moom mooy indi solution yi ndax dañuy continuer di def ay canal ndax dañuy continuer di def ay bassin ndax dañuy continuer di def ay estation de pompage loolu ñun ñi ngi ciy liggéey incha allah rabbi fii ak le 10 janvier daañu ko commencé sur un marché de vingt deux mois donc bu yàlla dafay jàmm bu commencé 10 10 euh, janvier xëy na bu ñu compté douze mois dana dellu waat fii daal ne ah man de gis naa ne Touba bassin baax na fi waaye lii moo gën gis naa ne Touba nab bi lii boox na et ñu bokk kaat ak yéen ñaan yàlla fekke ko bu ñu ko toogee fii et bon solution yooyu mu indi bu dalee seen xel daa ngeen ko waxal seen bopp comme nii nga xam ne connaissance bi dale na xelu borom xam-xam yëpp solution yooyu tamit bu ñëwee ñu teg ko ci kaw taabal ji bu dalee xelu borom xam-xam yi ñu fas ko yéene wéyal nag ñaan yàlla vraiment euh, inondation jeex ci Touba jafe-jafe yi wàññeeku mais li nga xam ne tey jii taxaw na temm temm temm temm mooy lii ñu jot a liggéey. ñu permettre ëllëg bu lotissement amee ci dëkk bi nga xam ne fa la war a màggi foofu moom lépp lu fay dex lépp lu fay déeg xam nañu ko daañ ko jébbal xalif bi daañ ko jébbal kilifa yi ba bu dëkk bi màggi waree màgg jëm foofu ñu bàyyi xur yooyu bañ koo def lotissement ëllëg bu mi tawee ñooñu mën a am jàmm loolu mooy solution yi ñu tënk léegi ak solution yi xam ne fa lañ jëm commune bi moom jàpp na ne lii moom lañ ko defal parce que am na lu mu doon bëgg booba ba léegi mooy li ñuy wax cadastre urbain fexe ba dëkkuwaay bi fii ci Touba ñu mën a xam fan la ñu war a dëkkee fan la ñu warut dëkkee fan la ndox war a jaar fan la ñu tabax fan la ñu warut tabax mais ñëpp xam nañ ne Touba dafa am lu fi am loo xam ne nii xëj na bëriwul dëkk yu mu am mooy nit ñi dañuy tabax sans am autorisation de construire te loolu tamit du looy ñëw rek d'autorité ne da nga koy imposer nit parce que dëkk bi dafa am lu mu laaj dafa am lu muy doxee donc kàddu gi benn la kilifa gi moo moom. mais bi ñu waxtaanee léegi dañu ne ah ñun nag dañuy jaar ci beneen démarche parce que li ñuy wax guichet unique maanaam service nguur gi yëpp dañuy dajaloo ah, sapeur pompier euh, service d'hygiène Ageroute ah, cadastre urbanisme domaine boo indee sa dossier ñu saytu ko bu ñu xoolee ne fii ngay dëkk kat du yoonu ndox baax na ñu ne ah baax na kon autorisé nañ la nga dëkk fa loolu mooy li yoon wax Touba day tënku ci loolu parce que spécificité Touba du rek wàcc warut a nekk wàcc yoon waaye gën a tënku ci yoon ñëpp la donc dañ cee tënku waaye dañ koo bëgg nag adapté ak ñun suñuy réalité suñuy réalité mooy fii dañ fi am lu ñuy wax communautarisme maanaam dafay am ay initiative yoo xam ne ñëpp gis nañ ne dox na lu mel ne Touba ca kanam lu mel ne Touba xeet waaye ñu mel ne Hizbut Tarqiyyah di ay jàmbaar yoo xam ne sëriñ bi li ñuy liggéeyal te ñoo ñëpp ay borom xam-xam nekk ci ño nga xam ne dañoo jort ne bu ñu dajee boole suñu doole ak suñuy xalaat mën nañoo am benn taxawaay boo nga xam ne euh, kilifa gi dogal bi muy dogal dogal boobu moom kenn du ko wor ñëpp dañ ciy dañ ciy dëppoo di ko def waaye dañuy bëgg nag su koy dogalit lépp luy xam-xam lépp luy xarañ day dajaloo ba moom buy jël décision du doon lu ñuy def di defar waaw looloo tax ñu ne danañ def benn guichet unique ñun fii maanaam boole suñuy xel ak suñuy xalaat ba xëy na li ñu bëgg a def population yi danañ xam ne ñoom lañ koy defal lu doon lu ñuy forcer kenn waaye dañ leen di xamal ne kët fii ak téeméeri at wala fii ak fukki at wala fii ak ñaar fukki at bu ñu jëwul xëy na dëkk Touba dana jafe wala dana metti te loolu bu fekkee ne ñun pour nag li ñu fi indi dañ koy wax dañ koo gëm mooy liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ moom mi ngi tàmbalee ci tënku ci yoon teg ko ci dëgg te wax nit ñi li nga xamee ni moo leen di jariñ moo tax ñu ne euh, saluer nañ initiative bi directeur jël ne dana fi indi benn observatoire observatoire boobu dana nekk lu ñuy tàmbalee suñuy daje. Mhm. di fa daje pour éprouver pour wane ne li ñu bëgg a def xëy na mën na nekk waaye dañoo bëgg a dem plus loin que ça mooy benn agence développement de Touba comme ni ko Saint-Louis defee ba nga xam ne xam-xam yi gën a xarañ université bi sëñ bi indi ak université Bambey wala yeneen universitaire maanaam ñi ne ci yoon wi yëpp ñuy renseigner décision yi ñuy jël parce que sëriñ bi kat ba muy tabax dëkkam bi. bu nee Touba dafa spécial dafa war a spécial ci xarañ ci jub ci tegu ci yoon te loolu lañu ñu kilifa yi sant te jàpp nañ ne ñi fi nekk ñëpp ci loolu la ñuy nekk sant ñëpp leen gërëm. ci coordination bi nga xam ne Touba ci kanam ak Touba xepp dañoo lëkkaloo ngir euh, mën a jëf ci ginnaaw bi nga xamee ne daaw gis nañ nawet bi ni mu demee tubaa ci kanam jël initiative ne duñ seetaan ndax jëf sax. te boo bënnoon bëlbël bu bu mu wale sax lu lu mu niru lu xeebu xeebu jëf la joj dina dimbale ndox mi ci la ñu lëkkaloo nag ak Touba Xepp ñu boole xam-xam yeeg yéene yi ba li ñu njëkk a def ci li Touba ci kanam di ànd ak Touba mooy tuyau yu màggat yu yàgg yooyu wër jumaa ji ak armeel yi nga xam ne li ëpp ci ndox mi jóge ci château d'eau yi day delluwaat ci suuf si ba ñëpp di gis ni muy bale euh, ñu Touba ci kanam juboo na génne lim bu takku bu jege deux cent cinquante millions ngir def ko ci loolu ngir ñu ànd ak Touba ak liggéeykat yi dëkk bi euh, euh, ñu ñu remplacer ko kooku benn action la dañ ko bool dañ ne noonu urgence bu amee na foofu amee na daamaatu dina amee euh, daaru xo daaru xuddoos mu fekk si point yi nga xam ne Touba ci kanam traité na ko depuis deux mille dix-neuf yu bari ngeen gisoon ci dëkk bi gisatu leen ko gisatu leen fa ndox léegi solution yooyu nag au ñu koy benn bennal dañu ne nañu dajale xam-xam bi ñu def benn étude global boo xam ne dañuy xool ndox mi fu muy bawoo bi ñu tàmbalee ci loolu gis nañ ni ndox mi yoonu ndindi wi lay jolof lay jógee di wal di dugg ci dëkk bi ndeke ndox mi génn lay wale di dugg ci dëkk bi bokkut ak ndox mi wàcc ci dëkk bi kese ndox yooyu yëpp bokkut ak ndox mi ball ndax tuyau yi nga xam ne 1950 lañ leen bi defoon téeméeri litres yoo jël juróom-ñaar fukki litres yi mu ngi dellu ci suuf si ndox su ndox moomu di bal loolu lépp boo ko boolee dana mettil dëkkuwaay bi kon mooy xalaat bi nga xam ne mooy étude bi Touba ca kanam tàmbali ak Touba jumtukaay bi doon wër nag di ci defi pexe ba Touba ca kanam jël drone fay ci xaalis bu bari ngir mën a am point yi ñuy soxla ñun ingénieurs yi pour def liggéey bi moom la ñu direction de gestion et de prévention des inondations indil na ñu ne nag ñun lii tawfeexu sëriñ bi la ñun ñun ñun murit noonu la ñuy doxee. bu ñuy dox ci mbir lu lu ñu gàttandu rek ñun xam nañ ne sëriñ bi la. loo xam ne boo ko doon def liñ jot a def. matul dëkk bi de waaye ay fukki fukki million la ci Touba tubaa ci kanam def boo ko naroon a dajale ay téeméeri téeméeri million du la ko may. kon ñu indil la ko ne la mi ngi nii mu matalee ba noppi nag te gën yow da nga doon def kon cant gi. ñun li ci def xam-xam bi nga xam ne nag moo war a def étude bi. sëriñ bi am na ko ci njaboot bi ñoo fi teewoon tey. ànd ak directeur ak délégation ànd na fi ak fukki nit ak juróom. yu mu indaale ba Ndakaaru ñu ñu saytu loolu. léegi bu ñu fi bawoo ak jàmm jumtukaay bi mu nu jox ñun dañ ci sukkandiku dox ba mën a wax ne ndox mi fii lay jóge fii lay jaar fii lay jëm nii lay nii lay koy jëfandikoo bu booboo nag ñu itam ñu ñu ñu ñu àndaat ak moom ndax. ànd bi ñu ànd tey tàmbali la mhm. dootul dakk bu soobee yàlla euh, bu ko defee ñu ànd jàppale askan wi lépp nag ngir sëriñ bi ci dëkkam bi mhm. waaw sëriñ bi ngir dëkkam bi waaw waaw